وانفعنا بما يا رب سكنك كما تشونا جوتيم الدين اللهم انفعنا ما سر فيه من لا رب سكرنا بما در فيه من مسرات وكرد هنا سائر كم جنا هوات اللهم تقم من عام القران وتجعلنا ما كان تلاوه من سيئ نسيان او تحريف او تقديم او تهان او شيء نقصان او تهويل على اخر ما او تهجيل عند تلاوته او كسل او سهل لسان او وقف خير وقف او دعاء خير متهم aw ishaar ba xari bayaanin faktu min ala tamaamal kamaar wal maxas min kon an daan warzuqna fadla man xaroma addiyan xaquma la daawal xabi wal insaan wa xarbana bi xeer wa saadata wa bisaar wa amlata tumana bisar wa laada wa tuxyaana nabina xawla man aya amina min xaflat wa kasaana wa amina min asaabil xabri wa min suali mun kër wa nakir wa min akil didaan wa bayd bu joxna yom basi وأنتن رقابنا من نيران ومن كتاب حسامنا وساقد ميزاننا بأسناد وسبق أقدامنا على سيرات وسكنا wa zatal jinaan wasukmat jiwaaru seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam wa kiroona li xajaat yaan allum accal quraan hasimin rabbi xulloo man na wa jàlla ansaanina wa saamaxumoynana wa illa jannat nahim alluma accalu insina fil muhsati wa musahibina fil muhsati fi sulma wa daalina fil xayra wa لمعلم أهدي بسعادة أجرنا وقم بسعادة أملنا وقرآن بعافية خدونا وأسرنا وجل رحمتك مسيرنا ومالنا وأصبس جاله فيك حل سنوبنا ومن علينا بسرحه يبنا ألم أتل تقوى سدنا وسوق بك سخرنا وعفتنا وأمنا من جهة الخلاف بلانا وسرايا بلانا بسم يا رب العالمين اللهم بلغ سوى ما قرأناه ونور ما ترونه دروي سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام الأرواح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 alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin salatu wassalamu hadid ma fi hilmi la halika wa ala alika ya rasulullahi aqisni aqisni aqisni aqisni sarhan bisidla hono ko amin nee na ñu ngi leen di nuy te di leen ñaanal képp ku ñëw ci bis bi rek jàpp ci ak noo ci jàppe ak ñi doon jàng xasida ak ñëpp sëñ Abdul Hakim Euh, sëñ Abdou Chakour nee na mi ngi leen di euh, ñaanal ñoom ñëpp mbootum xasida yal nañ ci jot ak mbootum alxuraan jërë ngeen jëf nee na xeebul kenn daal képp ku jàpp ci bis bi ak noo ci mën a jàppe rek waaw nee na waaw kay nee na mi ngi feggoo ak sëñ Abdou Ndiaye mii di sëtub sëriñ Daaru Assane Ndiaye mu nekk ci wetu ndeyjooram nee na moom it doon wëllëreem doon léppam wax dëgg yàlla ñu xam leen ci alxuraan nee na moom sax la la noor a terale gaa euh, euh, kii bi waaye euh, ndigal li moo tax rek jër ngeen jëf nee na siyaar na leen bu baax a baax a baax yal na ànd bi yàgg. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñu topp ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax euh, di leen nuyoo nag euh, fii ci pencum maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina euh, fii ci Touba ñu gën koo xam ci Oumoul Khoura fii ci Baye Fall gi nga xamante ne bii sëriñ Abdou Lahad Mbacké mu baax ma moo jëloon dëkk bii wala pàkk bii jox ko njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall muy ab lim boo xamante ne ñoo ko dëkkee ndax kër maam Cheikh Ibrahima Fall gaa ngi ni ngay jàkkaarlool li ko wër lépp mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi ko dëkkee ak mboolem yi nga xam ne dañoo toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall Babi xam nga tey nag mooy euh, fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu ñuy fàttaliku bis bi nga xam ne ci la ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim euh, gërëme woon maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouride dina ca Daaru Salaam muy ngërëm loo xamante ne bii xam ngeen ne boobaak léegi euh, ñu ngi di ko fàttaliku waaye bis bi nag sunu borom jaarale ko ci loxol Serigne Bassirou Fall Alxuraan muy jàmbaar joo xam ne di fóotu woon fi Serigne Mbacke Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouride dina xam ngeen ne bis bi yàgg nañ ko woote ca Tiwaawoon waaye amoon digal ci Cheikh Mouhamadul Amin Bara ngir indi ko fii ci Touba boobaak léegi itam kilifa yi di ko teewe at mu jot xam ngeen ne mboolem seex yi ànd na Serigne Touba Seexul Xadim Serigne Bass doon ko taxawul boppam daan ci bernde waaye daan ci jàng alxuraan di ci jàng ay xasida lépp loo xamante ni bi rek bis bi da koo laaj ñu ko ci daa def waaye tey jii itam yàlla dogal biñ demee bay dëgmal bis bi xam ngeen ne daaw xam ngeen ne daaw xam ngeen ne daaw Serigne Bassirou Fall alxuraan moom sa borom dogal na moom mooy ki nga xamante ne bii moo ko moo ko moo ko woon moo ko taxawu boppam waaye bi nga xamante ne sunu borom dogal na bis ba jàll yàlla na daw eh, mu daal di fi bàyyi ko eh, bàyyi koog doomam ji sëñ Gunda di ab taawam waaye tamit bàyyi koog tamit eh, jëwrinam ji mu fi bawoon muy sëriñ Bada moom sëñ Mbàkke Fall wutu woon ko biñ ne bay dégmal bis bi itam gis ngeen ci la ku baax kooku di sëriñ Bada wuy ji bàyyam ba sëñ Mbàkke Fall ak maam Cheikh Ibrahima Fall waaye tey nag sëñ Cheikh Cokke ànd ak doomam ju baax ji tey ñu taxaw bis bi taxawaay bu am solo ñu taxaw nag ak sunu wayjur yu baax yi ku ci mel su ko defee mu leeral ñu rek lan mooy cosaanu bis bi ci li nga xam ne yàgg nga koo dund ak sëriñ bi sufa alxuraan ci bis bi ba fii ci Touba bala ñuy agsi ci Baye Moustapha Seck. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu bis bi moom daanaka mel na ni ñëpp ñëpp ci nit ñi mokkal nañu ko. ndax bis bi bi nga xamee ne dem nañu ba di ko gëstu ñi ko doon gëstu dañu ko laaj mag ñi fekkee jamono Cheikh Ibra ñaañoo ñooñee lañ ca wax dañu ko gëstu ba ni bisub talaata la woon de di fukki fan ak juróom-ñaar ciw gàmmo waaye ma ngi ko defe woon Daaru bi ñu ko waxee ba takk ko ci kaw gàttal gi moo dañu ko daal yut sëñ Basiru alxuraan sëñ Basit ni leen man dama am kilifa daal di dikk jox ko sëñ Modamin Tafal sëñ Modamin Tafal ni ko dellul nga nga nga wéyal ko yaag taalibe yi ca lay doxee ba fi mu nekk nii bis bi nag de mën na ay ñaari ay kiimaan da cee feeñ ndax ku xam na ni màggal dafa jàll gàmm door a ñëw gàmm gi bis bi dellu si ñu def bis bi màggal ci tiis la juddoo woon sëriñ bi di sant boromam ngir li ko ci yàlla séen tam nar ko bokk ak ñëpp gàmmu dikkam muy gan ak jënd gan ak jamono ak Moustapha alayhi salaatu ñu def ci lañ ca doon def bisub Cheikh Ibra bii dikk sëñ Touba gërëm ko ci ñu di ci def la ñu defoon ca màggal ga ak la ñu defoon ca gàmmu ga ñu mën koo defaat ci bisub Cheikh Cheikh Ibrahima Fall kon mel na ne yëf yi yàllaa ko jaxaseel boppam te jaxase gu ñëpp mën a jëfandikoo da kon nag liggéeyal sëriñ Touba borom xam-xam yi waxoon naa ko ca af ca ba ñuy ba ñuy def ba ñuy première bi waxoon naa leen ni leen jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla bokkuñu. jaamu yàlla jàng julli war sàkka saka dem màkk saraxe doog bokk liggéeyal yàlla ci mbindeef yi nga koy def ni mu yow da nga leen di jariñ te yàlla dong tax ci wàllu wax ak jëf te lii moom rekk fi xew jàng alxuraan tagg yonent bi alayhi salaam def ay tahlil def ay tasbiix def ay tasbiix yooyu yëpp nga def ko ba noppi nag berndeel nit ñi dëppale xol yi ba kenn ku ne bég mbégum lislaam loolu moo tax bis bi jóg kon noo ngi leen di gërëm te di leen sant te dina xamal ne bis bi ra mooy bisub jàmm bisub dollu ko bisub mucc yàlla noonu ko yàlla defal ca dara jëmaam Cheikh Rafal Baawul Muridiina bisimilah Eh, eh, jërëjëf eh, sunu Baye jërëjëf Baye Bara Mbodj macha allah tënk na sax cosaanul bis bi li nga xamante ne bii noonu la bis bi tàmbalee woon ba tey jii mu egg si ñoom nag ñuy ay ñoo xamante ne bii xam ngeen ne depuis sëñ Bass ba léegi bis bi ñoo koy taxawu sëriñ bi joxal leen ci cër bu yaatu di ziar baax sunu Baye Ibrahima Dia di ko jaajëfal bu baax a baax Baye Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullah lan ngay wax mbokki taalibe yi jàkkaarloo ak yow ñëw nga tey ci bis bi ñuy fàttaliku maam Cheikh Ibrahima Fall ci ngërëm la waaye mel na ne Cheikh bëri ngërëm la waaye benn la ci ay ngërëm yi nga xam ne sëñ gërëm na ko Eh, yabaloon ko ndar ah, bis bi eh, Serigne Bassirou Alxuraan eh, mu tegu ci loxoom tey jii mu tegu ci loxol sëñ Gunda mu ànd ko wéy juróom yi nga xam ne ñoom la bokk sëñ Mbacke Fall ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu di ko fàttaliku fii ci janatu Mawa man biha daxala fi amrin fala yakun xaa'iban wala munsafila yaa rabana habli bi akil kawsari yu na hayatu ujurika sari amin sëñ Modou Mamoun noonu ko Cheikh Mamadou Lamine waxe léegi noonu rek la mbir bis day am lu may gën a firil muy waxe Serigne Touba la may firil saa su ne ndax borom Touba wax ni xultu wa yaa mi isdarat umoosi wa futtu bil xamoosi fil xamoosi sama tey ju nekk day gàcceel sama démb sëñ Modou Mamoun bis bii bis ba ñu ko jëkkee màggal ca Tiwaawan aw béy jigéen lañu ca rey booba nun daanukat yi noo fa nekk daanukat jigéen lanu fa rey kër lamp nduur def ko fa ñaari at mu wàccub liggéey waaye bis ku nga tudd na nga ñaanal sëñ Adama Niang wakkaane akkan alay naa nasrul mu'minina moo ko dox mu sëñ mu sëñ Aydara Mbàkkam Daaru Muxti moom la Baye Mor Ndiaye tomb deel ni ko may bët sëñ Massamba Ndiaye wàqi ba ma ne Mor Ndiaye ma ne ko Faal mooy ma ndax xam nga bis bii sëñ Bamba bi bi gërëm si yéen Faal suñu sang bi mu ne ko bëgg naa xam mu ni ko sëñ ma Samba Ndiaye waxkee ma ko wax ni mooy ba seera faal ba mu ko ne ma Samba Ndiaye mu ne ko faal mu ne ko ndax xam nga bi ma sëñ Bamba gërëm mu ko bëgg naa ko xam faal mu ne mu ne fukki fan ak juróom ñaar ci aw gàmm dëppoo bés boo bis boo bi xam te ni daa topp ci altine te ko ñu ko def nga mer ne maa koy talaata mu ne waaw kay muy talaata muy talaata bis boobee ñu gàmm ko ñaari at nun daanukat yi sëñ Adama Ñang sëñ Adama Sarr mii sëñ Dam mbooloo moo mee sëñ Ibrahima Booy mbooloo mu bari nuy ay daanakati jànkati kese rek ñu ngi suñu liggéey ñoo xam ni bis bii nag xobu xël la xobu xël rimb na gémma ñu def nu jébbal ko njabootu maam si Ibrahima Fall mu teg ko jëloo ko sëñ Moodu Aminta Fall sëñ Moodu Fall Fall mu baax ma sëñ Moodu Fall Fall teg ko jëloo ko sëñ Basir Fall alxuraan mii nga xamante ni jëmmi ngërëm la jëmmi sëñ Bassirou Fall alxuraan rek moo tudd ngërëm moom da ko defoon jëwriñ ci bis bi ah sëñ Modou da ko defoon jëwriñ ci bis bi ko bis bi yaa ko yeyoo damaa bañ a guddal ni ko bis bi yaa ko yeyoo fabal mu ngoog ko moom bis bi bisu sëñ Bassirou Fall alxuraan bisu ngërëmu maam si Ibrahima Fall la nag waaye bisu Serigne Bassirou Fall alxuraan sëñ Modou Aminta Fall mu baax maa ko ko jox ba loola amee xool nga li sëñ Bara wax ni léegi nu dem ba nëgë ni ñuy rëyi gëléem de reye nag lim bi mëneesu koo wax hmm. gàtt yi xamul nu ñu toll hmm. fu nekk nag boo Europe aw ñama nga fi jóge di ñëw te ba ñu koy tàmbali tàmbali ko ci aw béy wu jigéen hmm. kon sëñ Touba ak maam Cheikh Fall seenu mbir seenu doxin mëneesu koo xiyaas mëneesu koo misaal te nag bis bi nañu xam ni ndagam juddu woon na ba noppee itam day doog a fer te bis bi day doog a fer te bis bi nag war naa mat waxambaane te doo ko mat bi war naa sëmp kër te dina ko doon te bis bii nag war naa dimba bis bi di atte jamono te dina atte jamono te day doog a fer kon rek dan war xamatan men laay badi xëyri min dina ma feej xoolal eh, sant nañ leen bu baax te bég nañ ci yéen itam <laughs> eh, suñu xol seet na yàlla leen fi yàlla yàggal eh, ci barkeb sëñ Modou Mbodj ci barkeb Baye Djibril Seck <laughs> jërë ngeen jëf tubaarkàlla